nga xam ne moom laa euh, bëgg waxtaan ak yéen ci lu gàtt mooy li xewoon démb assemblée nationale jaaxal Sénégal yëpp ndax dañu defee woon ne président Macky Sall bu bàyyee affaire bu troisième mandat vraiment stress bi dina wàññeeku waaye dafa mel ni président moom ci stress la ñu bëgg a yóbbu ba février 2024 parce que président boo xam ne yow dangay dem février luy sa yoon ci vraiment ay tripatouillage de la constitution moom dañuy xaar lépp ci moom ba mu des di changer constitution ci kuy dem février kon ñu ngi féliciter vraiment député yi nga xam ne démb am nañ taxawaay bañ war a am muy député Benno Bokk Yaakaar ak député euh, opposition ndax li wolof di wax mag du fecc yàlla naa dee ndax andi projet boo xam ne la ca ne woon mooy président saa yu ko neexee mu nangu seeni poste député te nga xam ne ñu ne buñ ko xasee ba jël euh, voilà amoo benn garantie ne da ngay ñëwaat la ca ëpp chance sax mooy dootoo nekk député kon ñoom amoon nañ fulla fayda bu toll nii ñu indil leen loo xam ne lii méngoowul ak seen intérêt waaye méngoolu aussi ak intérêt réew mi ndax dafa doon li ñu naan une réforme bu ko defoon bu jàlloon déconsolidante de la démocratie ma fàttali ne président Macky Sall ci boppam moo indi woon loi boo xam ne bii day tere kenn mën a tas assemblée nationale ci giiru ñaari at loolu mooy indi aussi stabilité ci réew waaye bu fekkee ne réew moo xam ne saa yu président bi yeewoo rek xool kanamu député yi neexu ko mu ne tas naa assemblée ba moo kon kon kañ la ñuy liggéey kañ la ñuy liggéey te loolu xaaruñu ko ci président de la république président li ñuy xaar ci moom tey su ma naataango yi dinañ ci waxtaan mooy mu bàyyi ñëpp doon candidat mu fexe ba réew mi dal mu libéré aussi sunu détenus yi loolu dina am ñu ci wax dinañ ci wax euh, plus en détail mais ci point bii nga xam ne moom laa waroon waxtaanee vraiment dañuy aussi gën a kañ suñu député yi. suñu député yi dans leur ensemble parce que assemblée nationale assemblée réew mi la ku fa toog ngay opposition wala ngay non inscrit wala ngay euh, euh, benn Bokk Yaakaar askan ba la fa yóbbu kon toujours bàyyi leen xel ne vraiment intérêt askan wi ci ngeen war a dox rawatina nag président boo xam ne dans six mois mu pare monsieur le président de la république yow affaire troisième mandat jeex na waaye bàyyil mandat jàmbur yi c'est pas parce que yow it amoo troisième mandat nga a nangu mandat mandat wu député yi ñoom ñoo ko moom voilà foqati nga sama bos waaye kooku beneen débat waaye ñii nag wax dëgg yàlla euh, bàyyi leen seen cinq ans euh, wala en tout cas bu pré beneen président ñëwee fii léegi mois de juillet kenn mënut a nangu seen i mandat kon jaraw lak député benno yi ak député opposition yi nga xam ne nanguwu leen loo xam ne kenn waru koo nangu as gor nag doo nangu loo waruta nangu kon ñu ngi leen di félicité di leen kañ di wax président Macky Sall mu génnee vraiment loxoom ci constitution bu muy bëgg a voilà caxat caxatee te dans six mois ci lay dem li ñuy xaar ci moom mooy li ñu wax mooy vraiment mu dalal réew mi génne stress bi nga xam ne permanent bi mu bëgg a dugal réew mi loolu kenn mënu ko nangu. kon ñu ngi félicité député yi ci wàll woowu te la mu war def moom xam na ko mooy mu def ko problème yaa ngi fii bari bay bëgg dee voilà na six mois yi nga xam ne moo ko dese ci bopp réew mu liggéey lam ca war a liggéey. nanu ko waxee su ma naataangoo yi dinañ ñëw ci yeneen point yi parce que amoon na ñetti point ci suñu plateforme bu ko defee vraiment en février mu teg dossier yi dem noppalu waaye affaire constitution article 87 ak xaw ma beneen ban article kooku yoonam newatu ci na bàyyi février kii ñëw ba juillet kenn mënta laal assemblée nationale bi euh, bu ko defee ñu xool aussi fan la ñu war a jëmee euh, suñu démocratie waaye lii mu bëggoon a def euh, vraiment heureusement député yi am nañu fullaak fayda boo xam ne bii nanguwuñu ko ba moom mi ko indi woon da koo mujj retiré loolu li mu koy wan nag mooy euh, daanaka appam jeex na ndax kuy bëgg a dem nag ak ki nga xam ne day toog lu yàgg bokkuñu bokkuñu bokk bokkuñu pouvoir loolu aussi bu jàngat ci wàcce lépp bàyyi politique politicienne bi euh, def li nga xam ne war na koo def février incha allah mu organiser élection yu jaar yoon bàyyi ñépp ñu participer libere xale yi dinañ ci dellu si euh, bu ko defee Sénégal continuer yoonam ci wàllu démocratie ñu ngi leen di gërëm.